waaw euh, jërëjëf mbokk yi ba tey ñu ngi fii ci Adrien Senghor waaye ñu ngi taxaw kenn koo xamante ni kenn du ko présenté muy président Diaks production nekk euh, koo xamante ni vraiment li traditionnel bi mu ngi ciy bay waaram rawatina bëre dóor bi nga xamante ni ñu ngi ko fay gis muy tëgg journée président ñu ngi lay nuyu. ñu ngi leen di ziar bu baax a baax yéen waa Wassare Lamb di profité ci occasion yi pour nuyu képp kuy amateuru làmb waaw. Euh, tey woote président Manga euh, mu ñëw ñu nommé ko chargé de la lutte traditionnelle euh, ban gis-gis nga ci am. rafet rek di ko rafetlu di ko rafetlu bu ñu jëlee ku mel ni Manga 2 nommé ko président de de la lutte simple loolu képp ku bëggee lutte simple daf ko war a rafetlu ndax Manga dafa nekkoon mbër lutte simple nekk ci champion ba jógee fa ñëw nekk champion lutte avec frappe roi des arènes. ba jógewaat Farine saa na ma ko conseillé mu liggéey ak ñoom ay at ba tey mu ñëw nag nag jiite nag lutte simple ku mel noonu bu ñu ko joxee lutte simple jox nañ ko ki ñu ko war a jox waaw ndaxte lépp lu ne ci biir lutte simple ñun dañ dañuy coow rek mais moo ñu ko gën a xam ndax ba léegi promoteur la waaw mu ni mel ni lutte simple bari na ay jafe-jafe yoo xamante ni am na ko souligné nga ko ci woon euh, ñaar rek boo ñu ko doon souligné li nga xamante ne mooy dëgg-dëgg jafe jafe lutte simple lan la Ah, jafe-jafe yu lutte simple mooy su mooy appui lutte simple dafa mus a nekk làmb boo xam ne pour defar ay mbër lañu dem nekki après bu ñu matee dem lutte avec frappe loolu moo doon rôle lutte simple amul leneen à part ñi nga xam ne ñu ngi ci àll bi def ay compétition compétition yi ñuy def sa cadre village la doon bu jëkkoon loolu amul léegi nag àdduna di dox di dox ba làmb ji dugg yeneen dugg si ñeneen ñëw ci ba làmb ji développé nekk leneen bu fekkee nag nit ñi ñu seen bët ni pour xam ne làmb lu simple mu ngi feneen dañu gëlëm ñu ngi ci beneen niveau tey boo déggee ñu wax ay gala ay 4 millions ay 3 millions ci àll bi lu kenn mësul xalaat nga xam ne ay beneen nag ñaari nag lañ daan teg ñu fay wax ay gala ci àll bi tey ay million ay 5 millions Dakar dem ba egg ay 10 millions beneen affaire la beneen affaire la nañ xam ne beneen affaire la dootul ay lutte simple ba nit ñi xamoon déedéet moo tax su ma déggee waa Adrien naan làmb fii rek la war a am ils n'ont rien compris bu jëkkoon dimanche nit ñi daje fii doy na sëkk mais fii même pas même pas 1500 personnes làmb bu demee ba soxla tey ay 5000 6000 10000 personnes dootul làmb bi gaa yi xamoon. Euh, président mu nekkaat leneen loo xamante ne jaaxal na képp koo xamante ne amateur nga lutte traditionnelle euh, ñu gis ni ministre bi euh, dalal na mais dalalul kenn koo xamante ne bokk na ci ñu ŋànk lutte traditionnelle bi mu mel ne li wolof naan mbaam gàtt na lool waaye ci jur gi la bokk te fondement wu bëre mooy lutte traditionnelle ban gis-gis nga ci am. ah waaw bu ñu nee 4000 licenciés ñoo am ñu ne 3000 yëpp lutte simple bu fekkee woowul waa lutte simple ah moom mooy woote. kenn du ko wax wool diw wala wool diw wala dañ lay forcer nga woo diw moom mooy woote ni président amee sañ-sañu nome ku ko neex moom ministre bi tamit ci li mu toog noonu la amee sañ-sañu woo ki ko neex ki ki mu yaakaar ne mën na ko jox conseil kooku la woo ak ñi mu yaakaar ñooñu la woo bàyyi ñeneen euh, euh, tubaab daf ne choisir c'est refuser boo tànnee bàyyi nga déggoo wax ji de suma tànnee diw fekk bàyyi naa diw xëy na xalaatu diw boobu nga négligé moo ëpp doole sax xëy na xalaatu ki nga woo mais nag mënuñu ci reprocher ministre bi dara parce que dafa tànn ñi mu yaakaar ne ñooñu mën nañ ko jariñ ci li muy def euh, conseiller mën nañ ko conseiller ci li muy def ñooñu la woo woo na leen wax na leen nommé na Manga 2 loolu ñu ngi sant yàlla ci nommé bu mu nommé Manga 2 nommé ne équipe bu bees équipe bu bees boobu ca CNG bañ fa demee réunion barka démb xaw ma démb nit avec wax naa leen la ma xalaat ndax boobu moo doon première fois ma génn ñëw ci ay réunion voilà ñaa ne li mën développé làmb xanaa ko fii sànq ñoom Alioune Sarr ñoo ko liggéey nit ku nekk na nga nangu li mu def ñoo ko liggéey teg ko fi muy arène bii arène bii tey moo mën a lancé làmb du ay sponsor déedéet booy wax sponsor rek xamoo li xew bi mën a lancé sans sponsor ma ne xam nga sponsor day fay télé télé def émission làmb muy wane ay produit am déet au lieu mu fay ko promoteur bi nga xam ne mooy investir fay ko ko télé ba la ko fay télé bi jël image yu promoteur ne dama lay defal promotion di ko exploité di encaissé ay millions promoteur ba toog bu promoteur bi tëggatul nag télé dina wane dara hmm? kon làmb base bi mooy promoteur ndax base làmb niñ ko eh, organisé du ay fédération ñuy teg ay coupe ay yooyu xaalis la ay millions la muy dóor bi muy simple bi xaalis boobu promoteur bee koy lijjanti yu ñëw teg ko kon moo war a nekk ci kaw ci kaw pyramide bi boo ko boo jàddee pyramide wàccee pyramide bi jël keneen jox ko ne jum tey nag ni ko CNG ma ñëw ci war a doxalee mooy dañ leen jox loo xam ne jamaa la wax naa leen ko seen bureau réunion man du ma nëbb samay wax nee naa leen man du mu ma dénkoon CNG làmb naaw na tey naaw na dem na yoonam dootul taxawati ndax jamaa lañ leen jox da koy leeral mu leer appel d'offre international ngay def xam nga luy appel d'offre te ne dama àdduna bi yëpp laay woo sama stade baa ngi nii gis ngeen ni mu mel ni mu taaro làmb lañ fiy def samedi au dimanche chaque samedi chaque dimanche ñu ngi làmb jaay naa stade bi ku nekk waxal li nga mën a proposer ci enveloppe muy branding li ñuy wax branding dégg nga wax ji ngay ñëw ne mën naa fay cinq cent millions bas ñëw ne fay naa 1 milliard keneen ne fay naa 2 milliards keneen ne fay naa lii ki ëpp xaalis bu mu fay ngeen jox ko pour un an. mooy li ñu doon confirmé moo keroog la ma doon wax rek ñu ci bari dañ naa non stade bi nañ ko tuddee diw nañ ko tuddee diw te làmb war naa mën a dépassé niveau boobu. du affaire tuddee de gis nga loolu bu ñëwee parrain doo fi amati. utum sponsor dootu fi amati. ndax benn sponsor leader la gagné na stade bi. foo dugg ci stade bi depuis mbedd ba. mbedd ba ba ci biir géew bi ay affaire am rek fa nekk produit bu dee orange ko gañe orange rek ngay gis bu dee free ko gañe free rek ngay gis bu dee waajali def ay kàngoog ay affaire yooyu produit yooyu produit am rek ngay gis télé bu ñëw filmé moom ngay wan neex na xadi léegi su si joxee un milliard CNG moo yor un milliard yow boo amul budget wu cent millions jox la un milliard lu desati ci làmb ji ko tuddee nekk ñu wut loolu déggoo li ma la CNG encaissé na un milliard huit mois de compétition la huit mois yi quatre dimanche la ak quatre samedi quatre fois huit trente deux deux fois muy soixante quatre journée la boo ci boolee jours fériés yi soixante dix journée la à peu près ci année bi soixante dix journée mbër bu tëgg ay image am la moom moom journée yéen fay ko ci sponsoring bi ci ci li ngeen encaissé CNG mooy fay mbëri kon mooy fay promoteur yi CNG mooy jël ci un milliard boobu promoteur bu tëgg samedi dimanche bu jox leen sa président li ma jaaxal mooy mos ngaa toog ak ministre bi avant ñuy nommé yu mel noonu waxtaan ci lu jëm ci ay bàyyi ma ak ministre ku nekk bàyyi ko li mu gëm man li ma jàng diplôme yi ma am ministre bi amu ko président de la république amu ko man soxlaw ma topp kenn di ko neexal di ko wax lu ko neex man Amérique laa jànge li may def maa koy ñàkk feneen di ko andi ci làmb ji di liggéey li ma mën a liggéey ba fa mu yem bu ñu defee li ma wax làmb ji naaw dem à jamais doo fi gisati mbënd mi en tout cas mbër yi dem ci géej gi yëpp dootuñu demati ndax dañu am xaalis bu boobaa ñu ngi ko jox mission moom Manga ne ko demal tëggi làmb ci région yi yóbbu làmb ci région yi lañ ko wax loolu la ko ministre bi wax nan la koy yóbbu te région yi amul koom ban koom am ci région yi buñ jaayee gerte gi weer la ñuy tëgg làmb mu jeex ñu si des heure boo tëggee ñu ngi yëg ci ay kii di di tëb ay stade di seetaan. ñu ngi naan amateuru làmb yi sax lañ nekk ñëpp a ngi Dakar du amateurul làmb Dakar Sénégal mooy Dakar ñëpp fii la ñu ute tey boo génnee dem Koungheul tëggi ji ko koo fay fekk waa Dakar ñooy jël oto demaat Koungheul pour seetaan làmb ji soo bëggee waa Koungheul am làmb ministre bi dafay indemniser làmb ji bu ma woowee Jax production ma toog ak moom ma wax ko programme boo xam ne bu bëggee naawal làmb ji ci àll bi man lay woo man. monsieur le ministre ñu investir ci làmb lu kenn deful quatre-vingt-quinze millions en cinq ans. mos fu ne dem ci région yi xam li fa ne. su ma wooyee ma ne ko programme bii la soo defee nii ma defal la nii rek sept douze région douze douze journées fu ma dem mbëri topp ma. monsieur le ministre ñu ngi lay lancer appel. kii ku mel ni président Diaks mi xalaatam ci làmb ak xam-xamam ci làmb ak xarañam ci làmb macha allah képp kuy njabootu làmb naw na ko ñu ngi lay ñaan rek. nga recevoiral ñu ko parce que boo ko recevoiree njabootu làmb nga recevoir parce que am na idée yoo xamante ne lépp li wolof naa lu duf ci nag bi xajandoowul ci cin bi euh, am na idée yoo xamante ne mu ngi ci moom te war na ko mën a partager képp koo xamante ne njabootu làmb la. dégg li ma wax fii ci affaire arène bi. du simple fii Adrien Senghor dafa am fu mu yem. làmb romb na foofu. boo nee bu keneen tëgg. yaa ngi yaa ngi rey làmb. parce que làmb yóbbu nañ ko romb na foofu. fii un million la. boo demee fii Joal ñu teg fa 2 millions 500 mille romb la. alors. nga dem ci 2 il faut ñu am stade bu ñuy tëggee mënuñu ko am arène la ñu am arène bi il faut nga indemniser nit ñi pour ñu mën fa ñëw tëgg fa lutte simple. te gën fa 10 millions xam naa li fa ne. mais tey mais tey boo newoon Jax buy tëgg 10 millions arène nationale jox naa ko 5 millions pour jàppale ko làmb ji mu neex mais loolu day fekk CNG bi jaay arène bi nu ma la ko waxee Jax mën a sawar ne ah tey jox nañ ma 5 ëllëg damay tëgg 20 millions. ginnaaw léegi mu tëgg leneen boo ma ne àll bi ma ne la ay ca douze régions yi compter ñu def programme politiciens yëpp ñoo jàpp si ku nekk sa région mu fekk la fa dóoral la cinq millions nga mayee stade bi parce que boo fa jaayee billet du jar wax ji foofu la ne du ma dëkk sama cinq millions di ko may politicien pour lan wax ji foofu la ne région yi ñoom ñiy liggéey état état jox leen gënuñu ni ñi ñu yor pouvoir bi yor doole ji yor xaalis bi nañu ñëw jàpp ci man bañu ma joxe effort pour làmb simple avancé région 5 millions région 5 millions région boo dem mu toj. bëre bi ñëwal yan yan idée nga am ci bëre door bi. bëre door bi c'est pareil sponsoring boobu. branding boobu mooy doxal bëre door moom la ñuy jox promoteur yi tamit bu ñu tëggee ñu fay leen ñu gën a sawar gën a tëggaat nee naa leen nañ yokk 15 komba nañu wàññi temps combat yu ndaw yi def ko 10 minutes maximum yokk mu dem yokk 15 comme mu nekk 15 combats au total 15 combats yooyu mooy tax promoteur bi mën si génn. lu tax mu am dara naam mooy tax mu génn si léegi nag bu ñu jaayee branding bi di ko si jox promoteur yi gën a sawar pour tëgg leneen mais xajatu fi xaju fi la desoon daaw ak li war a ñëw ren xajul ci arène ba il faut ñu bii ba maar jub te dañu ci mosal ñun waa lutte simple li ma ko waxee fële bu dee ñetti dimanche ñu jël benn bi jox ko lutte simple bu ko defee ñoom bu ñu tëggee ñett ñun ñu jox ñu benn muy quatrième bi ñu teg fa 5 millions teg fa 10 millions nit ñi mën a ñëw kontaan bëgg mbër yu mag yi daje. parce que amateur yi loolu lañ soxla. dañu soxla ponkal yi daje. adversité am te ñu ngi am na beneen affaire bu nekk ci làmb ji gis nga buñ ñu deful attention ci suuf lañ jëm gis nga champion bu euh, euh, euh, ni ñu koy waxati lutteurs yi et puis war di renouveler wu renouvellement boo gisee cinq ans yi li neexal làmb ji rëg-rëg la ci la bokk ne cent pour cent rëg-rëg mooy soixante te bana bana ñëpp dañuy ñëw nañ ko daan mbaa ñu bañ ko daan moom la ñuy ut si ni moom la ñuy seetaan yàlla na fi daan yàlla bu mu daanu loolu mooy dundal làmb ci mais bu fekkee dañ dem kii boo xam ne c'est c'est plat amatul benn spectateur benn amateur benn lutteur boo xam ne wala ay lutteurs yoo xam ne dañuy génn cran nekk ñu extraordinaire nit ñi soxla leen loolu day rey làmb ci liggéey bi des na de. Euh, jërëjëf président Diack sax xam naa ne dinañ ko tënk ba beneen yoon incha allah ñu ñëw ci. lu am solo lañ wax. voilà loolu buñ ko defee dañuy naaw day dem day dem. jërëjëf voilà merci. jërëjëf maa ngi koy jaajëf. ok waaw noonu rek.